réew dafay torlu lu des moments historiques moment historique boobu lañu ñu toll. na yéen ñi safoo di seetaan dal leen jàmm ci xibaare mbir nag daal dina xam fële sa li nga xam ni moom moo di lycée Malick bu Thiès ki nga xamante ni moom moo di monsieur Coly eh, ñoo ko daal di jàppoon fële sa dimanche bi paate fële sa cité kër góor gi loolu tax na nag lu toll di ci ay eh, téeméeri prof yi nga xamante ne ñoo waroon euh, corriger li nga ne moom moo di bag bii di ñëw ñoom kat dañ ko daal di boycotté di xamal rek li nga xamante ne moo di nguur gi gannaaw bàyyun seen collègue googu noonu di monsieur Coly te ñu jàppee ko woon fële tek góor gi duñ mus a participer li nga xamante ne moom moo di correction yi war amal si li nga xamante ne moom moo di bac bi loolu rek ngir wane li nga xamante ne moom moo di seen solidarité envers li nga xamante ne moo di monsieur Coly Ousmane Sonko tamit dox na digg daje après li nga xam ne moom moo di tabaski dina def beneen conférence de presse ngir wax li nga xam ne moom moo di situation dëkk bi ak naka la ñuy mën a def ba pare euh, jublu si li nga xam ne moom mooy 2024